jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo <laughs> waaye dama leen ne nga 9 kilos lóbbu gas maam mën nga koo rey de waaye nag piir bi moom fii rek nga ko mën a amee lóbbu gas maam jaara ndax secret bi ñu taxañ ci biir fii rek la am mi ngi nii dal liñ kóor gaa ngi original baa ngi bu leen kenn nax nag 9 kilo bari na nag te bokkut boo leen bëggee bu baax lo bëggaas maam jaara rek ku ko nag d'origine bi nag fii moom a e vent neuf maam jaara <laughs> yaa moom a e vent jigéen ñi dul yaa jaara bu saf yi asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu yéen waa jataay bii di xiraa xiraa ay jataay la yoo xam ne dañ ciy jàng pour faire iji pour mën a liir arab mën a lire alquran mën a lire hadis mën a lire fiq ñu nekk ci di jàng arab yi nag ba tolloon ci araf ñu tuddee arafu saad euh, tey mbokk yi ngeen baal ma moo war a nekk sunu juróom-ñett fukkeelu juróom fukkeelu jataay ak juróom-ñett. juróom fukk ak juróom-ñett nii lañ koy bindee juróom fukk ak juróom-ñett 58 ci bu doon dañ wax tubaab gisoon nañ bind bi weesu sa ba ra sabara ba sa ra basara saama saama tey dañuy gis euh, maag yéen saara saara ngeen baal ma ci big bi macha allah mi ngi ñëw saara saara mhm. ñu gis naa naasi run naasi run naasi run saara naasi run bi ci mujj mooy ñu gis ba ba sa lu ka basaluka basaluka saara naasirun basaluka basaluka ci arab mooy sa soble ba sa luka basaluka naasirun ak saara ba tey bu ngeen seetloo ñu ngi ci lettre bi nga xam ne mooy sa dañu bëgg rek fu ñu gisati sa ñu xam ko fu ñu gisati lettre sa rek ñu xam ko sa sa sa si sa sa sa ñu topp ko muy te leçon bi weesu sa ba ra ñu boole ko muy sabara ba sa ra ñu boole ko muy basara saama ñu boole ko muy saama acca tey ñu gis saa mhm. saara naasirun naasirun basaluka basaluka mbokk yi cant ngërëm ñal na leen maa ngi bëgg nag ci nga xam ne bu ñu tàmbali suñu jotaay bi dañuy fut ay baayu gàtt yooyu ndaw ku ndaay di añee teg ko xale yi toog ñoom tam yor seen bindukaay di bind euh, benn rek laa ci laa ci nettali dama dem dëkk ma réew mi ñax New York dëkk ba fàtte naa ko waaye daal damaa ñëw as xale su toll nii waa kër ga yëpp ne ko sa ustaas ñëw na mu daw laxasuma ñu ne lu xew mu ñu ne moom buy buy fo focci yii xale yi fo ci téléphone yi di génne ay mikeeg yooyu moom Alioune Sall lay génne génne xiiraa ba xale bi fi nekk nii lii yi romb yëpp mën na koo wax vraiment loolu kontaan naa ci keroog trop macha allah euh, te béggoon ci yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen cant ngërëm ñale leen kon ba bind bii di ñëw incha allah bu leen ko fàtte bu leen toxal bu leen jàppee. abonné leen aimé leen participer leen tey partagé yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen ba bindi bi di ñëw incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jeeg bu siis moom mere stress boo koy seet si bett waaw waaw li mu saf rek ku ko naan na ko xam. yow mosal ku ko mos dàkkam ci ko variété yi bëgg sama dàkkal moom rek lay topp yow mosal ku ko mos dàkkam ci ko variété yi bëgg sama dàkkal ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, entrepreneur ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac est là pour vous accompagner la concrétisation de votre projet. Pas de souci, le groupe MacBuilding vous donne la possibilité de payer en plusieurs échéances et de devenir propriétaire dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, contactez le 77 550 11 19 Resto soko mose dootoo ko bàyyi. alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani. lu sax si xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëppay feex.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 nous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek. labbayk allahumma labbayk Oh, mbokk yi seen jaaxley tukki jeex na tàkk ak seen agence de voyage Bab al Hajj et Umra nekk fii ci Thiès marché central wetu pharmacie Bathily ñoo gën a gaaw ci lijjanti leen visa ci anam yu wér te boole ceeg di leen jaay ay billets d'avion fépp fu ngeen jëm ci Europe États-Unis ba ci Asie mbokk yi weeru koor bii di ñëw fas yéene nunoo ànd ak yéen ci spécial Umra Ramadan 2024 ci paquet si yu xéwale paquet si VIP 2 millions 500 mille standard 1 million 700 mille ngeen mën a dëkk nag ci ay hôtel 5 étoiles boole ceeg ñu leen di transporter ci ay véhicules climatisés di leen jox ndékki añ ak reer boole leen nag giddi buy wax anglais arab ak olof ngeen mën a visité ji nag jabalu nuur masjidul xiblatayni masjidul quba baqiya ak jabalul uhud mbokk yi looy béy mu mën la da nga koy teel a waajal contacter leen ñu gaaw ci 77 520 17 28 ngir leeral yu gën a yaatu en sens de voyage Bab al Aj et Omra Thiès marché central wetu pharmacie Bathily ca dëgg-dëgg daal ñoo fi nekkal askan wi